Subatel Music présente Bercy Dakar deuxième édition le 7 octobre Monument de la Renaissance avec le Golden Boy Sidi Diop. moo fay génne disque d'or il faut tamit ñu ànd ak suñu xel ay wax képp disque d'or disque d'or taxul nit am disque d'or liggéey moo koy maye il est sur cette vraiment bu ko nit yi gisee tamit bu ko supporté mais <laughs> fii ñëpp mënuñu ànd ñëpp mënuñu ànd ba dëgg yàlla waaye ngalla boo àndul ak nit tamit boo ci mënta wax lu rafet maanu ca rek xam ne suñu borom moom lu mu namm ci doomu aadama dañ ko jot comme ni ma wax léegi rek yaa ñoo naan disque d'or dañoo gàtt xel gaaw a kontaan barki maam Charafal tax ma ji je vis loin moi maa ngi xool lu lu kawe loolu ba lu man gis nga collaboration aussi da koy jëfee. am na assez de link. collaboration municipation yooyu yëpp taxuma ne dama man waale tam tant que demoo bañ naan waale euh, bu ñuy tudd ñi nga gën a xam ci àdduna bi bu ca waale bokkul ca trois man pour man des man sama gis man foofu laa nekk ay gis. côté ndax su fekk na fi débutam yàggul dara 2009 ñëpp li doon wax. yooyu doon wax tey ñoo mujjee ñëw garaawul yàlla baax na bu dee nii la suñu liggéey di demee kanam moom ak ah, nañuy wax rek suñ tubaab moroom yaa ngeen jëf Baye Fall salaam la famille salaam les Faramareen là on est avec Fama notre sister borom Tëngéej ah di coiffeuse bu mag nekk de Poulet ñu ñëwoon di ko laaj suñu album frère Wally Balago Seck. waaw Fama luñ ci mën a wax. rek ci Wally di ko di xaar CD bi benn Faramareen benn CD coiffeuse yëpp ñoom la ñuy xaar génn na tey ñun ñëpp ña fa nag. incha allah mais de ba précommande. précommande dinañ dem nag xale ñu ngi mobilisé pour dem def précommande. avant album bi sax di génn kontaan ci moom rek waali moom xam nga man moom yàlla def nañ sama office mais dama ko nawloo quoi parce que euh, dafa rafet tol en plus dafa baax en plus ba mu ñëwee ci musique sénégalais ba léegi dafa dafa avancé tamit gars bëgg nañ ko sénégalais bëgg na ñun jeunes yi tamit daf ñuy motiver cinq comprend man moom dama koy enjoy quoi dama koy enjoy ba li ma metti mooy gisuma ko bëgg naa nag après yëg na ci moom ma jéem a gis moom waaw pare dañ koy man Cheikh Khady tamit maa ngi koy bëgg. ba pare def nga sa précommande. waaye man tamit def naa sama précommande ñu ma ma def sama précommande xam nga ñun daal mooy li nga wax la famille aujourd'hui on est avec mon frère le grand coiffeur Salim Diour ñu koy ooyee Baye déjà Wally Seck dafay génnee CD le 6 octobre incha allah album bi tudd Awara bi ci ñoom ci ma la wax. waaw ah, affaire bi naa si mooy ñoom yàlla yàlla na ko bu wax Pascal nga wax sa xarit yëpp moom dañuy fanaan fii avant tout rek waa li jeune la doon sénégalais di liggéey dañ ko war a àndandoo ñu ñëpp sénégal jàppale mu dem sa kanam mooy loolu mais album bi tey waa li daf indi disque d'or te ñëpp dañ dañ war a ku nekk benn album benn CD waaw moom vraiment wax dëgg yàlla moom Wally kenn mënu wax moom parce que borom baax la ca kaw ca kanam rek Wally Seck benn farama ren benn CD waaw Hello guys, c'est DJ Yves, la voix de toute une génération. Sortie internationale pour l'album de Wally Balago Seck, I le 6 Inch'Allah. télécharger l'album. dem nañ ci plateforme de téléchargement yi mais aussi bu génnee ngeen jënd ko wala sax ngeen dem def seen précommande actuellement nii ak les cartes prépayées carte Visa donc sorti incha allah le 6 et c'est possible plus de cinquante mille albums Wally va décrocher le disque d'or dañu ko bàyyi xel donc Wally Balago Seck focus disque d'or le 6 incha allah I wanna be free libre Euh, disque d'or Wally Ballago Seck c'est-à-dire sur trois mois normalement war nga mën a jaay plus de cent mille exemplaires wala deux cent mille pour nga mën a bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen di jox disque d'or maintenant euh, bosu Wally Seck dafa commencé jur ay coow te album bi sax génnagul mais pour rappel que Wally Seck c'est un artiste sénégalais il est jeune et il a du talent te mu ngi def ay jéego. yàggul dara euh, Jason Derulo def na ak moom benn featuring def na featuring ak ki nga xamante ne moom moo di Chris Brown euh, te mu ngi def ay jéego yu bëri ci wàllu musique def na featuring ak Sidiki Diabaté donc depuis depuis mu tàmbalee carrière am en 2007 bi nga xamante ne génne na euh, son premier single muy Boo Juddoo en 2010 mu indi Volio 2012 mu indi li nga xam ne moo di Lunin 2015 album xel double album donc en 2016 mu indi apéro après indi symphonie ba ci album bi nga xamante ne euh, mujj na ko génnee donc euh, ak single li nga xamante ne jot na ko génnee euh, ci diggante bi mu jëm nag ci li nga xamante ne moom moo di beneen album bu mu war a Euh, donc euh, album état d'esprit laa doon wax bi nga xamante moom la mujjee génnee mais mu jëm maintenant ci sorti album international bi nga xamante ne moom la tuddee euh, I wanna be free a wanna be free mooy je vais être libre donc moom tënk ne déjà moom boppam ci album bi mooy que dafa bëgg féex libre moom def li nga xamante ne bëgg na ko def ci wàllu musique am et c'est possible lu tax ma wax ko mooy c'est le premier artiste sénégalais c'est le premier et je précise bien et je pèse bien mes mots boo xamante ne def na album vingt titres national album yu njëkk yi dañ naan gis ay six titres la huit dix douze maximum wala ba seize mais moom dafa ñëw def vingt titres plus benn bonus boo xam ne defoon na ko ci album bi muy en 2015 album xel beneen bi mooy à l'âge de trente ans mu dem taxaw Bercy à l'âge de trente ans mu dem taxaw ci Euh, scène bu mel ni Bercy loolu si bokk na ci jéego yi nga xamante ne def na ko def yenn saal yu ci mel ni Zénith dog Ousmane Doc Pullman ah, ak euh, yi nga xamante ne ay saal yu mag la yu nekk ci àdduna bi yëpp. donc tey bu demee ba war a génnee album euh, sénégalais yi ñoo ko war a supporter ses fan ñoo ko war a supporter dem jëndi album bi pour que disque door bi ñuy ruumandaat mun ko décrocher et c'est possible encore une fois parce que disque d'or nit moo koy am. disque d'or artiste moo koy gagné comme moom ni mu ko mën a amee noonu la ko keneen ak keneen ak ku nekk Sénégal si mën a amee li ko indi rek mooy déjà il faut nga def loo xamante ne au niveau international euh, dinañ ko mën a consommer parce que dafa am ay ay mélomanes yoo xamante ne du ñu sénégalais donc xamuñu exactement kii est Wally Ballago Seck mais dañuy dugg ci plateforme yi nga xamante ne mooy plateforme de téléchargement yi di dugg di wër ay musique donc dañuy dugg bu ñu gisee ne album génn na. ci journée boobu wala ci semaine boobu wala ci mois boobu dañu dem duglu déglu ji artiste boobu noonu jéem a découvrir sonorité artiste boobu noonu parce que parfois nit am na fi disque d'or te ñi ko ñi ko ñi jënd albumam wala ñi ko déglu ci ci ci plateforme yi nga xamante ne fa ngay dem pour télécharger wala nga streamer xamuñu artiste bi mais musique bi moo leen di neex wala boog sonorité yi nga xamante ne dégg nañ ko ci musique bi moo leen di neex donc loolu bokk na ci li nga xamante ne aussi c'est à préciser donc il est issu d'une famille boo xamante ne famille euh, waykat la muy côté papaam nekk xale di def ay jéego depuis 2007 ba 2023 mu décidé ni dafay génnee album international donte yàgg na jéem a créer ay sonorités internationaux yoo xamante ne def na ko ak yenn artistes yi mais cette fois-ci dafa def album boo xamante ne moom moo ne dafay def album international maintenant baa ji génn le 6 bu génnee nañu dem ñu support ko mooy que ça soit le les africain africains mu mën a doon européen ñu ñu ñu dugg euh, télécharger son yi jënd ko wala ñu streamer wala ñu dem jënd album bi donc loolu bokk na ci li nga xamante ne moom laa bëggoon ni day leeral mais parce que polémique bi dafa bëri ci artistes yi euh, mun na ko am munu ko am waykat la album lay génnee fa ñu jaay album bi la koy yóbbu. pour mun a décrocher li di disque d'or donc ci biir semaine boobu noonu wala ci journée boobu noonu bu ci jaayee cinquante mille exemplaires mun na espérer jot disque d'or bi ci biir mois bi bu ko jaayee ba trois mois bu jaayee lu tolloog cinquante mille exemplaires mun naam am disque d'or wala mu def cent mille exemplaires mun na am euh, platine wala euh, diamant wala bu mu ci mën a doon en tout cas li ñu koy souhaiter rek mooy le six incha allah album bi génn. ñu ko war a jënd jënd ko les fan dem jënd ko les faramaren les sénégalais les africains dem support ko pour mu mën a am li nga xamante ne moom moo di album international bi mu mun ci am lii lee di disque door donc loolu bokk na ci li nga xamante ne dama ne woon naa ko partagé ak yéen parce que polémique bu bëree ñun ñu nekk ci milieu bi. rawatina les animateurs ñoo war a dimbali gindi ñi nga xamante ne ay déglukat lañu ay fans lañu ay fanatiques lañu ay mélomanes lañu donc ñun euh, notre rôle c'est quand même d'aider un euh, les femmes qui n'ont pas compris ou qui ne comprennent pas euh, ce que ça veut dire avoir un disque d'or ou parce que ñu bëri jàpp ne dafay génne album rek disque d'or bi ñëw non non non il faut acheter l'album dem streamer dem télécharger dem ci plateforme yi nga xamante ñoom la ñoom ñoom la ñuy télécharger pour mu a am disque d'or donc moom li ko war def na ko mooy way na génnee na maintenant en retour fans yi les sénégalais yi ko bëgg bëgg ko jàppale ñoom ñoo war a dem jéem a jëndaal bam bi su ko defee mun a am disque d'or donc loolu la woon moo tax man leen woon euh, seen xarit DJ Yves comme ni ngeen ko tàmm di amee euh, quand c'est important euh, l'essentiel bu jotee rek ñu koy génn wax ko. donc lii bokk na ci li nga xamante ne man sama rôle la en tant que animateur boo xamante ne am naa connaissance musicale euh, bi nga xam ne yàlla defal na ma ko ma génnoon juste pour gindiwaat les sénégalais rawatina les mélomanes waxuma ak ñi xam ñi xamul laay waxal pour mu leer waxuma ak ñi xam mais ñi nga xamante ne xamuñu ñoom laa doon dimbali. donc encore une fois ñu ngi leen di gërëm ci seen teewlu ci sunu People TV ñu joxoon rendez-vous incha allah très prochainement juste après la sortie de l' comme ça ñu mën a décortiquer album bi ci bu soobee yàlla di gërëm bu baax a baax encore une fois. un Faremaren, un CD, moi je dirais plutôt un Sénégalais, un CD, parce que quand même Wally Seck c'est une chance pour la musique sénégalaise, donc un Sénégalais, un CD, et focus pour le disque d'or, le 6 Inch'Allah. I'm out.